jaajëfal alxaaji sëriñ Mbàkke sile mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yi def dara ni ko sunu mbokk ndey Mareem Njaay di waxe ci fan yi at mu bees émission bu bees xam ngeen ne ab diir a ngi nii ay weer a ngi nii ay at a ngi nii ñu ànd ak yéen ci ilallahi ibadallah ilallaahi ibadallah fajaru àjjuma jot sëñ Mbàkke ñu am ko ak woy déglu yi te mooy jéego yi nga xam ne moom la nit kiy dox jëm ci boromam subhaanahu wa benn boroom xam-xam liggéey yoon ko ñu wax ibnu qayyim al jawziya rahimahullah nu daan ko ànd ak yéen léegi nag bi mu jeexee dana war a ànd ak yéen ci lu nu tee sori waaw lan moo nu tee sori nun la nun la jataay bi tudd léegi ginnaaw bi ñu jeexalee ci ilallahi ibadallah léegi nag lu nu tee sori kaylaanam di nam di baida ibnu xayim lañ àndaloon ci waxtaan woowu moo ko daan préparé bi yoon nag docteur Saïd Hawa moo nuy préparé waxtaanu fajaru vendredi mu mu jëm ci lu nu tee sori wala bokk kay laa nam di waaye balaa ñu ñëw ci émission bu bees boobu professeur pédagogue yi bu ñuy jàngale du ñu jékki-jékki rek fàq ci leçon bi dem ca bële dañuy ànd ak étudiants yi ñu résumé ak lum yàgg-yàgg leçon bi nu nekkoon fàttali ci ay tomb poser étudiants yi quelques questions ñu tontu yenn saa sax bu jaree ñu def benn euh, benn concours walla benn examen wala benn compo dina tax ñu xam li weesu woon waxtaan yooyu tuddoon euh, illallah ibadallah te ibnu xayim al jawziya liggéey ko mi ngi ko basé woon ci saar wu ñu wax alfaatiha alfaatiha muy saar wi nga xam ne kuy julli ku nekk rakka bu ko amul yàqu ci la ko jële woon moon ñu ne faatiha dafa am ay matalib aaliya waaw yu kowe kowe kowe nekk ci biir alfaatiha ay tomb yoo xam ne yaa ngi ci wax yàlla bi nga ne ko alhamdulillahi rabbil alamin ya ko ca wax am solo lool wan nga ne ko yaay borom bindeef yi yan nga wan nga ne ko yaay allah waaye wan nga ne ko yaayu arrahmaanu rahim wan nga ne ko yow mu diin bu ëllëgee yaa ko moom xëccoowoo ko kenn alfaatiha moom ci nga wan borom bi tabaaraka ne ko yow dong la nuy jàmm ci juróom-benneel bi wan nga ko ne ko yoon wu jiw wa lañ bëgg nga teg ñu ca yoon wu jiw wa ci lañ bëgg nga teg ñu ca ma ne kon nit kaa ngi bëgg a départ dox boobu nag lu ko tax a yeex eh, ba fi nu toll nu toll fa mooy nekk waxtaan wu wu bees wi incha allah eh, alfaatiha jàngaloon nañu ne ku wéet ku booy gestu lee nga tiit ku wéet booy gestu lee nga tiit di alfaatiha amoon na tawxiid bu am solo bu ci nekk ci biir moom saaru alfaatiha woowu nga xam ne moom la ibnul xayim jël ànd ceeg ñun ay at a ngi nii sax laay wax tabarakalaaw ñu ànd ceeg moom bu nu xëyee fajaru àjjuma rek daal di ànd ci illaahi ibaadallah jàngal nañu ci lan mooy ar jàngal nañu ci lan mooy ar-rahman bu ñu dee résumé professeur Djibi maratibul hidaaya jàngal nañu ko ci ndax bi nga ne naa na'budu wa iyyaka nasta'in da danga cee teg ihdina kon hidaaya muy njub googu bi mu nu ko bëggee jàngal daf ñoo indil benn martaba bu am solo mooy takliim mooy diggante Muusaa ak sunu borom martaba bu am solo la ci alhidaaya sunu boroom wax ak Muusa Muusa dégg tabarkal bokk na ci martaba yooyu martabatul wax yi yàlla ku mu teg ci yoon léeg-léeg mu déey moom la def yonente ya alayhi salaatu wasalaam martabab mooy yónnee yónnee maratib yooyu nag mboq borom xam-xam nee nañ xaasatum bil ambiya yonentiyee ko moom mooy martabatu taklim martabatul waxyi ak euh, martabatu irsali rasul yeneen maraati bi mooy bu ñeenteel ba mooy martabatu taxdiis mooy martaba yàlla wax ak yow benn bi mooy martabatu taxdiis boobu mooy bu ñeenteel bi bu juróomeel bi muy martabatul ifham martabatul ifham mooy mbir maa ngi nii yàlla xamal la ca loo xam ne lii xamuloo ko te moom la soob martabab juróomeel mooy martabatul bayaanil am mooy martabab leeral bu yàlla leeral te li muy leeral ñépp ñoo koy bokk loolu ab martaba la ca maratib ya bu juróom-ñaar bi mooy martabatu al bayaanul xaas mooy ber aw nit jox leen luñ joxut gën gaaya martabatu juróom-ñetteel bi mooy martabatul isma mooy dégg nga dégg nii ci rajo bi tax nga am yoo bàyyi tax nga am yooy def te daawoo ko def loolu ci maraati bi nga xam ne mooy bi ngeen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te la bokk maratibul hidaaya bi bokk na ci ar-ru'ya saadiqa mooy gént waxtaan wu ñu doon waxtaan ak yéen ila laahi amoon na ca alfa alfatiha achafiya day faj feebar yi xol yi ak feebar yi jikko yi fatiha daf koy faj yooyu lañu àndoon tabarakallahu jële woon ko ci alfatiha te nekkoon sunu bindi fajar yooyu bi nga ñëwee nag ci fatiha ba tey ibaada gi day am istiaana mooy di defal yàlla lim bëgg waaye nag ne ko soo jàppul du sotti soo jàppul du sotti su ko defee yàlla jàpp ca nga nga jàpp ca ba mujj sotti wolof nee na bu feccum liir neexee yaay jaatiyee ca wagg ya moo tax nga daan iyyaka na'budu di koy teg wa na nasta'inu dama laa bëgg a jaamu waaye nag soo ma jàppalewul euh, duma la mën a jaamu foofu nag la Ibnul Xayyim rahimahullah daal di duggee nag ci al ma al wala manasil asasiya al ubudiya nga xam ne euh, nit ki su ci xasee toll day daal am lu koy dikkal lu koy dikkal mooy lan mooy mu tàmbalee euh, yeewu mu tàmbalee yeewu al al manasil al arbaa al asasiya al ula nit ki tàmbalee yeewu yeewu lu am solo la ci pénc mi bu yeewoo mu xalaat bu xalaatee ci lay xam bu xamee li koy dese nag mooy dogu pour fas yéene dog yoon wa dogu pour fas yéene dog yoon wa dem waaw yooyu nag lañu àndoon noog yéen waaw fas yéene dogu dog yoon wa pour dem ku dog yoon wi pour demit dangay da ngay régler li nga jot a am la ca manqué la ci yàlla moom la ci sa bakkan moom su ko defee juróom-benn marta bi kon mooy marta boobu tuub li nga defagum li ci rafetut nga dab dabaatal ko la ca rafet nga bàyyi ko sunu borom mu sàmmal la ko waaw noonu ko sunu mbokk irande di waxe buy jeexal waxtaan wi lu <laughs> ko yàlla gën a sàmm juróom-ñaaral marta bi mooy ba mooy dellu dellu mooy bi nga nattee nga yëg ne am na yu nga dellu si wala nga yëg ne yaa ngi déraper nga ñëwaat wala nga yëg ne yaa ngi dem kër kurul kër yàlla nga dellu juróom-ñetteel ba mooy at-tadakkur mooy nangoo waaru nangoo waaru bu fekkee nit ki daa bëgg dem ci boromam bu nangoo waaru mooy mu dégg ñu ne nangam baaxut mu bàyyi ko sunu waxtaani fajar yi yépp loolu rek lay jëriñ xutbay jumaa yi loolu lay jëriñ conférence yeeg yi loolu lay jëriñ waaw loolu mooy bu juróom-ñetteel bi bu juróom-ñetteel bi al i'tisam mooy ku jëm ca yàlla dog aw yoon da ngay ngëb ca yoon wa téye ca lu ko moy gaa yi teggi la ca yoon wa teg leen ca teg la ca yoon wañ tege ñoom bokk na ci tomb bi ñu ci àndoon ak yéen mooy alfiraar alfiraar mooy ku jëm ci yàlla dangay ngay samp saw xel te boo sampee saw xel boola ca di gestu sab dox day yéex benn bidra nga am mooy jëm ci yàlla kon sëggal rek mu fukkeel beeg benn ci manazil yooyu mooy asama mooy dégg yàlla daa wutal nit ay nopp pour muy jël ay son mu wutal ay bët pour nga jël ay image mu wutal am xel pour ngay mixer di denc yi baax ah yi baaxul nga supprimer ko yóbbu ko korbey loolu nit kuy def noonu léegi tey nga gën ci penc mi baa kenn du la gën waaye ko xam ne kii si jumtukaay yooyu duñ jëf ak yow léeg-léeg dem ba du sotti mbokk yi fukkeel beeg ñaar mooy alxawf alxawf mooy def ba noppi tiit waaw li ma def moom borom bi nangu na ko nanguwu ko loolu mooy xawf waaw li ma def moom borom bi nangu na ko wala nanguwu ko loolooy xawf fukkeel bekk ñett ca fañ fa jaaroon mooy mooy jàq jàq suma yàlla reyee ci lu li ma nekk nii yàlla tere yàlla nu rey ci lislaam dekkal ñu ci tabarkal fukkeel bekk ñeent ci yiñ toppoon ci jéego yi nit ki jéego jëm ci boromam mooy alxusoo mooy xolam ak ragal yàlla nekk ca fukkeel beeg juróom ci tomb bi ñu doon ànd ak yéen ilallaahi ibadallah mooy al ixbaat ixbaat mooy kuy nëbbu di def ak jaamu yàlla mbakkar feggu la ko la fi tudde mbakkar feggu ndaw ku ndaa yi xam nañu ko ñoom góor gi ndaw waaw mbakkar feggu mooy ba ma seen bu ma ñëwoon Cees man ak Malick Ndiaye mii ak soose ak Ndey Mareem ak tabarkal ñu ñëw kër góor gi ndaw bu fekkee jabar ja ndaw la sant bu ñu nuwee ñu toog ba añ di jot bu jabar ji yekkee ba noppi day wut ab bool bu ndaw yàkkal ca leneen jëkkër ja tudde ko makkar feggu buñ añee ba noppi euh, pap ba daal ñuy woo añ ñu dem añi këram euh, tabarkalla ndóoy woonu ñu dem këram ah, su ko defee bi ñuy dem di añi nag góor gi ndaw moom du mën a dem mu toog bu ko defee jabar ji indil ko lam feggu woon gis nga loolu ci jaam yàlla dafa am solo ne ci roq ji def lu kenn yëgut fukkeel bi ak juróom-benn mooy az-zuhd maa ngi ci résumé at yii ñu doon ànd ak yéen ci waxtaanu fajar wu tudd ilalaay ibadallah di waajal waxtaan wu tudd kay laa nam di baida lan tee sori bokk na ci jéego yooyu kon az-zuhd mooy dëddu àdduna dëddu àdduna dund àdduna nag tekkul di lekk lu naqari di dëkk fu fu fu dëkkuwut dund àdduna li muy tekki mooy man àdduna jekk ko ba noppi te du la mën a yàqal fukkil beeg juróom-ñaar ca jéego yooyu mooy alwara alwara mooy koo xam ne day sàmm sàmm mooy na yonent ba defoon bañ koy misaal di dox ci madina ba mu yàgg mu for ab tàndarma bu mag te ñett fa na ngi lekkut mu yëkk tàndarma ne ko su mu wóoroon ne wadde woo ci sarax de danaa la lekk ndax soxla naa la naa nga mu fa nekk léeku mi daal fee bàyyi tàndarma ma dem loolu mooy ay alwaraaw bu duggoon ci suñu penc mi doo gis ko këpp kees mukk bu duggoon ci suñu penc mi lépp transparence lay nekk lépp ay leer waaw bu duggoon ci suñu penc mi lépp ay leer tabarkal lu fii leen dem du fi am waaw Birahim sekk <laughs> lépp ay leer kon su boobaa muy alwaraaw fukkil beeg juróom-ñett ca jéego yooyu ñu doon wax la nit ki jéego jëm ci boromam mooy atabatul mooy wàññi sa bëgg-bëggi àdduna yi waaw wàññi poids bi nga yanu ndax day tee dem mooy araja yaakaar yàlla nag yaakaar yërmandeem yaakaar jàppaleem tabarkalla fukkee ñaar fukkeel mooy arraxba mooy xemmem la yàlla yor ndax la yàlla yor daa gën li nit ñi yor lam yor moo gën fuuf ñaar fukkeel beeg benn mooy al muraqaba muraqaba mooy fuglu fuglu mooy loo gis bul jàpp ne loo gis rekk loola la del fuglu del fuglu bu ko defee kenn du la mën a nax ci yenn yi ñaar fukkeel beeg ñaar mooy taazimul xurumaat mooy màggal yi fi yàlla am tàmbalee ci nit nga mën a jox nit cër tàmbalee ci jàq yi tàmbalee ci jumaa yi tàmbalee ci ibaadaat yi mboolem lu fi yàlla am rekk nga bàyyi ci xel màggal ko loolu ci jéego yi nit ki jëm ci sunu borom la tabaaraka wa ñaar fukkeel beeg ñett mooy al li ngay def nga fexe ba yàlla tax doo ca njistal doo ca puukaréew doo ca def leneen ñaar fukkeel beeg ñeent mooy attasib mooy yaru ku bëgg a dem ci yàlla dangay ngay yaru gis nga ganaar guñ def ci sendal jëme ko fuuta bu yaroo àgg waaye buy cëpp cëpp ca sendal ga ba ne puyu ca mbooy ga du àgg de till yaa koy añe kon ku jëm ci yàlla dangay yaru ñaar fukkeel beeg juróom al istixaama ku jëm ci yàlla dangay jub da jub waaw tubarkalla jub xoj ndax wax naa yér yi <laughs> waaw la ñoom seen bu sekk yàlla na yàlla sàmm leen te aar leen feer boo gis ñu teg ko ca taal ba fab am marti du ko dóor dafa dëng waaye feer bu jub kenn du ko kenn du ko tàngal kenn du ko dóor ñaar fukkeel beeg juróom benn mooy at tawakkul a tawakkul mooy wéeru ci yàlla bàyyi ko sa bopp nangul ko te xam ne lu mu def rekk noonu la du juum moom suñu borom e, ñaar fukkeel beeg juróom-ñaar mooy afiqa afiqa mooy wóor walla boog wóolu nga am confiance ci sa boroom tabaaraka wa waaw adduna léegi da ngay wax ne rek mu ne lan laa def yàlla loolu kenn du ko wax yéegal na li muy def ci nii loolu daa gën moo tax mu def ko rek wa salaam ñaar fukkeel beeg juróom-ñett yéegu yooyu moo doon muñ ku jëm ci dangay muñ muñ ba muñ jeex nag muñ ay wax a ci gën a moo ci gënal alxuraan moo ci gën a métti wasbir alaa maa yaquluun ku mënta muñ ay wax doo xëy defal yàlla dara kon muñ a ngoog ñaar fukkeel beeg juróom-ñeent mooy arida arida mooy li la yàlla sédde doy la arida mooy li la yàlla sédde doy la waaw ndax yàlla day séddale day séddale kii da koy sédd eh, ab taar kii mu sédd ko ñaawaay kii mu sédd ko njool kii mu sédd ko ndaama kii sédd ko am yaram kii lu ne yàlla day sédd la rek waaye yow béggal ci lim lim la séddee rek tabarkal ku jëm ci yàlla noonu lay def fanweereel bi mooy ashukru ku jëm ci yàlla da ngay sant lu mu la defal rekk nga shukru shukru nag waxul fii xam hamdu shukru la wax shukru mooy bi la yàlla joxe ay bët nga di ko ci xoolal bu la joxee nopp nga di ko ci déglul bu la joxee tànk nga di ko ci doxal ila axiri lu lay shukru fanweer ak benn ci jéego yooyu mooy alxaya ku jëm ci yàlla day am kersa ku jëm ci yàlla day am kersa tabarkal bi kulli maanal karim fanweer ak ñaar ci jéego yu ñu doon dox jëm ci yàlla tabaraka taala mooy as-sidq mooy dëggu dëggu ci ci jëf dëggu ci ay wax fanweer ak ñett mooy al ithaar mooy nit ku mën a bokk ak lim am ay mbokkam ku jëm ci yàlla da mën a bokk ak say bokk li nga am ku jëm ci yàlla doo xëccoo déedéet ñaar bi ak ñeent mooy alxuluq mooy jikko li gënal yàlla ci nit mooy jikkoom rafet wa innaka la ala xuluqin azim mbokk yi maa ngi résumé ilallaahi ibadallah ngir ñu dal kay di baida at mu bees émission bu bees ilallaahi ibadallah mooy jéegoy jëm ci yàlla kay laa nam di baax daa mooy lu nu tee sori <laughs> lu nu tee sori jëm ci yàlla ay at a ngi nii ñu nekk ma lu nu tee sori waaw loolu mooy weneen waxtaan wi nga xam ne moo naar a wuuti wii may résumé incha allah fanweeri jéego ak juróom mooy atawaadu mooy woyof ku jëm ci yàlla da ngay woyof Sëriñ Fallu daane wax ne diis diig waaw jinaasa bu am solo diis diig kon ku jëm ci yàlla dangay ngay woyof yàlla nga koy wax ca suuratul furqaan mu ni ibaadu day woyof fanweer ak juróom benn mooy alfutuwa ku jëm ci yàlla dangay am physique da ngay am kàttan te nangoo def kàttan nga ca yoon ko ndax nit ñi daañu am kàttan di ko futbale ñi am kàttan di ko baskete ñi am kàttan di ko bëree lu ne kàttan gu ne ak fakk nit ñuy def léegi nag ki am kàttan nag fas yéenee jeexal kàttanam gépp ci boroom tabaaraka wa taala loolu mooy li loolu mooy li am solo ci wàll wa fa kullu man baadara waxta sixari ilal huda staraaxa waxtal kibari dama am suñu tubaa wax ca tasawadu sixaar fanweer beeg juróom mooy al iraada ku jëm ci yàlla dangay am volonté da nga am volonté waaw tey daal danga nga fay jóge jëm Tamba amal njàmbaar gu toll ni ba nga xëyee nga dem yendu ji jam ñaaju bu fa jógaatee demal garas bent ñi bu fa jógaatee demal jas yaag moom rek bu yàggee da nga dem Tamba waaye toog rek naan ah damay xaar rek xam naa bu mbooloo mi jógee nu ànd wala damay xaar bu fi oto jaare nu ànd doo dem mukk tabarkal waxoon naa leen ko ca sama yoon moo fi jaare woon jëm Tamba far far lang Dakar aw ma volonté su ma <laughs> ma amoon volonté iraada nëgëni maa nga Tamba bu yàgg waaw waaye aw ma mu ñëw ba Dakar rek Ibrahima Ibrahima Diallo commissaire ndeysaan dëkkoon ca Padoa ndeysaan daal di may téye <laughs> wallaay ndeysaan nu toog fi ba démb walla sax ba tey jii nuy waxtaan ak nuy waxtaan ak yéen maa ngi toogee li ca Tamba la jëmoon fekk sama xarit ba Mor Sarr ndeysaan rahmatullahi alayhi kon fanweeri jéego ba juróom mooy al iraada nit day am volonté lii laa bëgg a def demal nga def ko waaye lii laa bëgg a def ñu tee ngaa def lii nga far bàyyi loola mu tee ngaa def lii nga far bàyyi loola loolu kenn du ko def dangay am volonté lii laa bëgg a def nga jëm koo def bu amee ci pénc mi rek léegi te suñu pénc mi jag waaye waxi kese du defarum pénc waxi kese du yóbbu nit ca yàlla al iraada eh, mbokk yi fanweer beeg juróom-ñett te mooy bi ci mujj ci régime régime bi ñu régime tey mooy al adab ku jëm ci yàlla da ngay am ay teggin allahu akbar ku jëm ca yàlla da ngay am ay teggin ndax kër yàlla soxlawul ñàkk teggin jërëgéen jëf dama doon damay jéem a régime ilallaahi ibadallah pour dal beneen jataay bu bees bu tudd kay laa nam di baida lan moonu teesor yi ak seen i for yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor bii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara naan doon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu